baax na maa leen di sant di ndokkeel ministre des pêches Pape Sagna Mbaye ak équipe am ñi ngi nekk anam ñu ñëwul fi nag tey ci marché central au poisson bi nga xam ne d'abord fi ñu ko teg fi mun fété ci dëkk bi lu am solo la ndax euh, dafa nekk ci bo joggé ndakaaru fi la ci dëkk bi jéxé bo joggé aussi Tivaouane ak ndar yu mel noonu fii la dëkk bi tambalé kon mu nekk fo xamni point bu central la te xam ngeen ni Thiès am na programme d'investissement bu am solo ci ay autoroute ci ay euh, autorail yoo xamante ni ci ci kanam tuuti dinañu romb bor bi marché bi ni ñu ko gisee marché la boo xam ne dafay sédd ëllëg ndax bu ngeen defee benn marché def ci foo xam ni ñiy indi seen i jën mën nañ fa noppaloo war ngeen ma fi léegi benn hôtel boo xam ni am na juróom benn fukki néeg kon ñi nga xam ne dañuy dawal wala ñi nga xam ne dañuy jógee feneen fu ci Sénégal fu xaw a sori tuut mën nañ fi noppaloo te loolu yëpp dinañu dimbali ci accident yi dinañu dimbali ci yenn mbir yi nga xam ne dañ ko seetlu ci marché gis nañu aussi que marché bi da ngeen ci boole aussi même euh, fu ñuy mën a jaamoo yàlla daf ngeen ci benn euh, jàkk loolu aussi lu lu am solo la ak yi ngeen wax yeneen yi ngeen wax yoo xamante ni lépp dañ koy fekk ci marché wax ngeen ñu aussi da ngeen bëgg yokk marché bi ndax li leen ko nit ñi waxee amna lu ngeen ci bëgg a dolli ci walu légumes ci walu yàpp bien que marché central au poisson la xamna ni marché bi ci ci ci ci at yii di ñëw dina doon benn marché boo xamante ni exemple lay nekk ci ci ci exemple lay nekk ci ci ci ci ci réew mi je pense que cela est extrêmement important kon dañ leen ci dañ koy rafetal di leen di leen ci di leen ci ndokkeel nous bi nak avancé na gros œuvre yi ngeen ni jël jël ak donc des choses. wax ngeen mi it li nga seconde œuvre la frigo wala carrelage wala charpente né commandé nañ ko mi ngi ci di décembre dina di donc ministre des euh, des pêches mu surveiller pour que décembre ak jàmm ñu mun fi taxawaat ne nag léegi chantier bi pare na ni ko président de la République bëggee ñu jël ko jébbal ko population yi ndax lu am solo la loo xam ni waa Thiès mérité nañ ko waa Thiès yittewoon nañ ko pêche jar na ko te programme bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu pêche te fan yi di ñëw ñu war ci waxtaan waxtaan bu yaatu ak acteurs yi lii dina bokk ci li koy gën a jëmmal dina bokk ci li koy gën a dëgëral ma leen di sant bu baax entreprise bi aussi maa ngi leen di félicité gis naa ne ay xalé ci nek et ça c'est extrêmement important muy ay doomu Sénégal xam naa ne fii leen jàngee ñoom <laughs> daanaka ñoom ñëpp fii la ñu màggee surtout aussi gis nañ ni bi bi jëlee entreprise bi ñi mu jël ñi liggéey ñi ci ëpp ci fii lañ dëkk ci Thiès te soriwuñu gox bi loolu aussi lu am solo la ci liggéey yi nga xam ne war nañ ko di ko di ko def di pousse entreprise yi pour ñuy njëkk a jël. ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jege ndax boo jëlee infrastructure bu mel nii nga xam ne démb ay tool la woon euh, ngeen euh, dindi ko dafay baax ñi nga xam dañu fi nekkoon donte fay nañ leen ñu jël leen ñu liggéey ci mbir mi loolu aussi lu am solo la ma leen ciy félicité di leen ci encouragé bu baax di leen jox rendez-vous bu ci yàlla ànde au mois de décembre mooy li ñuy wax ministre bi décembre teg jàmm nañ fi ñëw jël marché bi jébbal ko ñi nga xam ni ñoom loo war a jariñ.